di julli ci ab yonenteem sangu sang yi ngeen ngi mbindeef rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama di sant Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasul di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom subhanahu wa taala yàggal ko fi lool ci barke alquran karim ak mboolem jullit ak képp ku di taalibe di ñaanal sama wasila cheikh Mouhamadul Mokhtar Mbacke ibnu Serigne Cheikh Awa Balla yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ay cëram di ñaanal sama ñaari wayjur ak mbolem ko ma massa xamal aw araf ci sama diina naka nonu nu ngi rafetlu jotaay bi bu baax di ci am mbégte fas yéene dellu ci wat ci jotaay bi di rafetlu mbolem kaddu ñu fi jaar yëpp mu melni tay kon fa ñu yene ñew ci sunu bindu tay kon ni ñu ko baaxo defee ñoo xam ne ñoo ngi ci jamono ji lëndëm jamono ju sew jamono ju xat ju bari ay gàllankoor ju bari ay tawat tawati mu jàmbat ba tax na li ëpp ci doomu adama yi wan ginnaaw li leen di jariñ daal di dëgmal nag mboolem lu leen di lor ngir topp koo xam ne dañu koy topp seen bakkan wala topp koo xam ne dañu koy topp seen bànneex wala nuur goo xam ne dañ koy nuur ci àddina te duñu am ku leen ci gindi loolu nag dara sababu ko lu wuyu gi nga xam ne dañuy koy wuyu seen noon bu rëy bi leen gën a bañ muy iblis iblis di jëmm ju tar di jëmm ju mer di jëmm ju soxor soxor gannaaw ba nga xam ne moom iblis lànk naa jëfe ndigalul borooma suñ boroom subhanahu wa taala daal di koy indi fii ci biir àddina ñu bokk nekk fi ak moom àddina bi barab bu ñàkk solo boo xam ne ba ku suñ borom bindee rek la ko daal di wan gannaaw seexlu ko lool daal di koy bañ lool ngir ak ñàkk soloom nga xam ne mbooleem barab yi mu amal yëpp suñ borom nee na addunaa ci gën a doye di nee na addunaa ci gën a suufe nee na addunaa ci gën a ñàkkal njëriñ doomu aadama waaw kon su ko defee nañ ko bàyyi xel bu baax a baax muy lu sew a sew a sew muy lu lu mat xel te amee ay teggin te xam ne loolu rek moo nu mën a jëriñ tey moo nu mën a jëriñ teggin nag ñett la teggin sa digganteeg sa boroom ak sa digg sa moroom moom nit ak sa diggan sa bopp teggin sa digganteek sa boroom mooy sàkku ngërëmam doonte da merloo nit ñi waaw mooy lu mat a bàyyi xel la teggin sa digganteeg say moroom mooy ngay jëflanteeg ñoom ni nga bëggee ñu koy jëflanteeg yow tegin sa digganteeg sa bopp mooy nga saxal ko ci jaamu yàlla subhanahu wa taala téyew ko ba du mooy ba tey lii ab sew-sew la bakkan day wér di tawat di dund di dee li koy wéral mooy xekma li koy tawatal mooy réer li koy dundal mooy xam yàlla subhanahu wa li koy rey mooy réere yàlla subhanahu wa taala xam-xam ñett la bu ñuy wax ilmul yaqin te mooy xam gu wér mel ni nga xam ne géej am ndox la doonte gisoo ko ak xaynul yaqin te mooy lu mel ni nga gis géej ba xam ne am ndox la ak xaqul yaqin lu mel ni nga dugg ci biir géej gi ba tax na imaamul xasaali yu radiallahu taala anhu nee na ngistal mooy bëgg njariñul àddina ci jëfi ëllëg moo xam ci yàlla subhanahu wa taala nga ko bëgge wala ci ay nitam lu dul bu adduna joojee mu koy wut caa bëgg a dimbandikoo ci jaamu yàlla subhaanahu wa walla lu ñuy jottalikoo ci mbirum alaxira kon du doon ngistal alxara fiyu nee na ngistal mooy def jaamu yàlla subhaanahu wa taala jubli ci nit ñi kese kon ci téere yu rafet génn ndax du ak jaamu yàlla subhaanahu wa mu ne ba tey jàng suratul waaqi'a guddi ngir ragal ci ak ñàkk génn ndax jubluwoo ci nit ñi naka noonu nee na aj màkka ngir yaxantu ak xare ngir mën a am alal jooy delloo ci sa bopp walla jooy dimbandikoo ci jaamu yàlla subhaanahu wa naka noonu ba tey alxaraat yi nee na boroom xam-xam yi wute nañu ci jëf ju baax joo xam ne ngistal da cee tàbbi wala leneen ndax ka ko def dana am tuyaaba wala day yeyoo mbugal bu fekkee la ko tax a def jëf ja ak jaamu yàlla la subhaanahu wa taala ak leneen ci ñaar yëpp maasa yam ci moom kon dana am tuyaaba mel ni kuy jàpp njàppum farata bëggaale ca ak serlu ci aw tàngoor naka noonu ci gàddaay ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala bëggaale ca bu ëllëg boo àggee foofee takk fa soxna altabaraani yu nee na tàmbali jëf ji rek lañuy xool ndax sell na bu sellee lu gaaraat ginnaaw bi itam du lor nee nañu bu tàmbalee jëf ji mu sell mu dem ba ca biir di bëgg ku ko ca sant du ko lool ndax li sunu borom wax ni ne wa yuhibuuna an yuhmadoo bi ma lam yafaloo ila aqri ndax lu mel noo ne day bindu nit te bu doonoon ngistal day mel ni yàlla subhanahu wa taala mi ngi nit lu mu mënut a bàyyi waaye war na mu di ko jéem a jeñ kem kattanam kon yàlla ñu ko yàlla defal boole ñu ko ñun ñëpp ci barke alxuraanul karim te mosal ñu ci mboolem yi lore rawatina yi nga xam ne dafay wowal ab xol te di ko tilimal te di ko yàq rawatina ñun ndaw yi ñu ngi jégalu ñëpp nag di jégal ñëpp ñépp baalu àq ñëpp di leen baal ci bu wér wasalaam tamat wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf jërë ngeen